àdduna jeena baneex ba jeena dëddu ko jot ngir Bàmba dem li ma leen ci digal moo di gannaaw Seex Mustafaa ku digli woon jële ko ci Serigne Touba te mag ña nekkoon ak Serigne Touba samay maam ca la ñu bokk samay baay ca la ñu bokk xame nañ ca lu wérit loo xaay ci ci ci Serigne Touba lañ ko dégg da ca doyal jat moo di Serigne Touba noonu na képp ku rasulullahi yoral bor bu la Cheikh Moustapha fay doo fay kon dem digle woon ku ko xam danga nga ca mooy te dara du la ci jël Serigne Cheikh mii foofu laay daaneel hmm, sëñ mët loo mberi ca tayif mhm. radiyallahu anhu andu nanu di dongo siyaare ji ko mhm. ci mbiru màggal gi laa wax waaw waaw ñu ngi déglu baax kay mu wax nu ne mhm. nun de mas nanu koo màggal si bay ñibbi booba yoon wi mi ngi jaar kere jëm taayif mhm. ndax yoonu taayif wii xew léegi booba Mbàkke la jëmoon dëgg la wii boo moo jóge Touba nii jaar Kéré Mbay romb maya land ak jëm taayif daanaa fa jaar bi nekkee fa jaar sax man mii danga mu gënoon gàtt sax foofu sëñ ma loo nee ba nuy ñibbi mhm. mook sëñ Mbay Faalu ak Fallu Saar ay fas lañ war booba bi ñu ñëwee ba tolloog buntu kër sëñ Fallu ci gigis gi. waaw ñu fekk ko fi mu toog. sëñ Fallou. sëñ Fallou ci boppam. Hmm. sëñ Fallou loolu moo ko wax de. dëgg la dëgg la macha nee na nu taxaw ku ne donga ba toppoon ci yow téye sow fas nu waaxu dem nuyu ko. Hmm. fekk ñu jóge ci màggal yii muy isri na maaram. dëgg la. mu ne leen. Hmm. da ngeen a ñëwoon ci màggal gi nu na ko waaw. ne leen ana seex ne nu ko mi ngi fi moom sëñ waxi sëñ Fall laa lay nettali de waaw ñu ngi déglu koy baax a baax ci sëriñ seex ne mu ne leen seex mhm. de maleen ko gën a xam mhm. sëñ ma loo ko ah, wala sëñ bay ku ko ca man tontu danga ko ne ah waaw dëgg yàlla waaye nag loo nu doolit ca xam-xam ba nu jël. dëgg ne mu ne leen ba mu ñëwee adduna. Hmm. maa ko jëkk a waxi tuuba Touba. Hmm. il faut ba ma ko ko waxee. tegal hmm. ca sama boppu ne ko. na nu ci dimbali. ne sëñ Tuubaa ne ko du sa gan du ganu Mamadu Mustafa ne fëgg dënd ba ne ko man mii sama gan moom sëñ Tuubaa waxal loolu si sëñ Fall sëñ loo ko wax fi doon gi gisam man mii sama gan te la daloon Rasulullah ci sëtam yi danaa ko ci fàggu mu ne ko ko dal parce que mu ne da leen dëgg te booluwu ca doole moom nag danaa ko bàyyee dëgg bàyyee ko doole te bu mu nekk leen fu mu aw baleen ko foofa yoon sëñ Fall wax lii sëñ Fall loo wax lii sëñ mag loo mbari ak mu wax sëñ Fall wax ne sëñ Touba ko wax lii moom itam non ne moom sëñ Fall sëñ Touba ko ko wax na ah. ko fu mu jaar waaw ah. seetaan leen ko foofa yoon bu ñu demee tey ba ñu ba ñu tuddee màggal gi màggalu sëñ Cheikh. Uhuh. yeyoon na ko. jërëjëf Ndiaye ko. jërëjëf Ndiaye jërëjëf li ma la waxoon ci njaal benn laay teerale. dama uhuh. ci xam lépp lu ma ko te keneen ku yéet la mu ca xam la mën na wax waaye mënut a xam la ca xew. dëgg la ñun daal li ma leen di digal digal ko sama bopp. Mm-hmm. moo di lu waaye mën na ko ci def. jërëjëf Ndiaye koo xamoon ne màggal gi jot mm-hmm. te ñu ne la boo demee faatu it. Mm-hmm. boo ma nee demal sa bopp demal faatoo fa boo ko mënul waxal ña lay doon ñu yóbbu la fa nga faatoo fa. baax na jërëjëf Ndiaye jërëjëf waay sëriñ waaw yéen waa jamaatu muridin wal muridaat asadiq wa sadiqaat seen bokk taalibe Ahmadu Jotu ba daal Xuddoos moo leen doon demal ci suñ man magub murid ñu koy wax Baye Sa Ndiaye Halim ñëpp xam ko ci kër gi di gërëm lu di rafetlu xam-xamam bu baax a baax di ko ñaanal fan yu gudd ba ànd ko wér ci barke sax Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma jërë ngeen jëf ba benn yoon